yëpp du yow mënu maa tontu leen dul lii <laughs> ndax alhamdulilah rabbil alamin eh, bokk ci ñi ñi may ñi may ñi may jàngi sëriñ bi yow yàlla dala si boole waaw eh, da ngaa bokk ci ñi may jàngi ñi may jàngi ñi may jàngi sëriñ bi xam nga loolu <laughs> ndax moom ñun danoo danoo xaw a na lu xaw a tumuranke ci ci ci ci ci ci ci ci rek ci rek bi ndax dana juddoo ci yàlla bi ñu yar na ci yàlla ñu mën wétal rek yàlla ñu mën wétal rek yàlla ñu mën wétal rek loolu nag tax bu njëkk booba daa ñëw tuwaat boo ñëwee dañu ma kañ nga fi ñëw ma ne ah ma indi ko naqari ma lool waaye ma ne ah moom de daa mel dañ ci bokkul waaye baax na man de bu ma amee juróom fukki at ñibbi tuwaat loolu ci ci sama tolluwaay booba wala bi ma ñëwee nag ci yow laa jëkk jàng sëriñ bi loolu moom mbir la yàlla moom sëñ moom sëñ bi xam na ko. waaw ndax li ma njëkk a jàngee ci yow mooy dama dama gis yow dama fekk yow sëñ bi li ma doon wut li ma njëkk li ma njëkk a dajal ci ci bokk gi ak ci ci dëgg bi mooy mooy mooy yow dama da ngaa bokk ci ñi ma jàngee sëñ bi ndax damaa gis ne sëñ bi mooy mooy mooy sa bëgg moo la saf moom ngay waxtaane mooy sa zahir mooy sa baatin loolu xam naa ko ci yow loolu nag ma sànn loolu da ngaa bokk ci ñi may jàngee ñi may jàngee sëñ bi waaw kon yow loolu rek sa wàll boobu loolu laa si mën a tontu waaw sëñ Cheikh moom loolu rek nga ne ko sax xawaal ma ko lu sant ma ko bu ah, baax waaw ne ko dégg naa sëñ Fallou xaw ma dama wax ak moom mm. <laughs> sama bari ba ko nuttubi mo mm. mo sëñ sëñ Fallou ne di ko jaar ne da nga ne yéen dawal ni ci boolewul ci liggéey bi mm, <laughs> ma ko noonu <laughs> wax nga ko doon ñoo yàlla def ma nangu ne samay samay sang ngeen moo tax ma bëggoon leen noppal ci lépp ma ne ko ma ne ko duggal sëñ tuwaay bu rek moom dafa dafa nekk suñu ma ne ko duggal sëñ tuwaay bu kër sëñ tuwaay yëpp laa ko boole <laughs> ni nga koy gis mooy li ñaan waaru biir du ah. xam la ah, ne ko waaw ne ko ah, ne xam na sama yéene ne ko yàlla na sama yéene ci moom yàlla xam na sama yéene ci moom lépp mat. yàlla bàyyi ko fi lu yàgg. amiin amiin liggéey sëñ Tuubaa. amiin amiin moom bi. waaw waaw kon aw ma aw ma aw ma sant sax waaye loolu laa ci mën a toog. jërëjëf loolu la sama mën a wax ëpp na ma bi ma ñëwee. yow eh, da nga bokk ñi ma jàng ñi ma doon jàng sëñ bi. Ah, ah, ah. Amin. Amin. Amin. Oh.